communauté laayeen ñu gën leen xam nag ci ëhlullaahi amal nañu julli Aydel Kabir ñu gën ko xam ci tabaski ci yal juma ji taxawaayu armal bi nag teel nañu ko def ba juróom-ñetti waxtu toftale fanweeri minit fii ci jàmmalaay yi sëriñ libaas cawlaay ibn sëriñ abubakar laahi moo jiite julli bi ci xutba ba mu amal gannaaw julli bi nag dellusi na ci njàngale limaamu lay al di fàttali solos tudd yàlla mu ne lu teey day mooy lu dagan kon dégg nga seydina limaam mahdi alayhi salaatu wasalaam li mu jëkk a wax mooy sàlloo tudde yàlla tudde yàlla nag am na tudde yàlla ak làmmañ am na tudde yàlla ak xol am na tudde yàlla ak cër yi yooyu nag du mën a nekk mukk feet ñu ngi jëfandikoo lu teeyul lu sellul feet ñu ngi jëfandikoo lu xaram xaraam ñu na am nanguk ñaan te si lu jëm si kanam tuuti lu dul ne ñu ngi taxoo di jëfandikoo lu dagan sang bi yamu ci àdduna it ci lii di shirk di bàkkaar bi gën a rëy soxal wàllu bokkaale sunu boroom bariyaa tey ci jullit ñi ñoo xam ne ñu ngi ci loolu ngir yëkki seeni sëriñ ak yëkki seen yaakaar waaye nag dañu xamul ne suñu borom li ma la wax rek nit manul mag ci kanamam ba ñu di la ak mom mu di ka nangu te du ko digle wala ya'murukum an malaikata wan nabiyina arbaba ay yamurukum bil kufri ba'da is antum muslimun naka nonu ñewat na yit ci solos tabaski ak lamu lambol mam ibrahim alayhi salatu wassalam bu mu tere dom ja di ko rendi fa lama aslama wa tallahu jabin وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقته يا إنا كذلك نجزي المحسنين ناديناه كن يالا سبحانه وتعالى بمتري دوم جدي كورندي تخم جن دف كو دف واو غير يرمني منول جاكارلو اك موم بامو كارندي لاكو يالا سونو بروم بامو كو جوغي غير رنديكا لا بروم سبحانه وتعالى دال دي كوي و جو وركا خمال كاني دغلغا لاغا غيسون واو ak saddaqtu ruya inna kazalika najzi muhsinin waaw dem na ba ci biir daal di wax ne inna hada lahu al balaa al mubin lii daal mooy balaa bi gën a bir gën a leer ci balaa yi waaw waaye nag wa fadaynaahu bi zibhin azim gis nga yàlla boo ko toppee rek def lu naqari rek mu weccee la loo xam ne aaxa moo gën a neex loolu bu weso li ni mel mom Serigne libas Thiaw delu sina ci jangoro bi lembe aduna bi di coronavirus te muy gën di law ci mim rew mu japp rek ne delu tup ci kanamu yalla dong mo ci mana andi safara ñaan nañu ci bop bi gis nañu ne mu ngi yok ñun ñep daw na ndax nanguluñ ñu lolu ñun non lañ ko jappé ñu kon nañu xamne yalla day nangu ak ñaan mo xam gis nga li ngay ñaan wala gisoo li ngay ñaan. nañ sàlloog loolu tax takkoo ak loolu te suñu borom bakat wax na ne la muy la may tëje nii ngir fàttali rek ndax fi mu nekk dama bëgg ñun ñëpp ñu continuer di ñaan rek te bañ a tàyyi te bañ naan mu ngi yokkoog mu ngi déedéet nañu continuer rek di naan incha allahu suñu borom ba yéen xal set naa teggi lépp bu nangoo suñuy ñaan waaye nañu tënku ci li nga xam ne mooy sarti ñaan ya te wax naa leen que li tax ma tànn ca sart bu fés a fés muy jëfandikoo dagan loolu dégg nga seydina limaam alayhi wasalaam li mu ci wax Julia Idel Kabir nag amal nañu ko fii ci layan ci saytu bu baax a baax lii di topp ak digle spécialiste yi ñu gis ne waaye taalibe yi ñoom sàmmante nañu bu baax a baax ak ndogal yooyule ngir rekk bañ a may feebar bi fu mu gën a amee doole ci réew mi